dégg ma ma dégg ma ma yëngu moo tax nga nekk ci néeg bi di jooy sa jooy seytaane yi waay pili pili yow sa dossier yaa yi nii barke la man xeam lakk bar say note nga fii buñ waxee ngay jaay làmmiñ wu rëy di jooy di ngaw ngaw yow lañ ngay jooy waa ap ah, ne yàlla jàng naa ba son dama jàng jàng ba son waaye jàngoo gàttaay Papa xoolal bi bu ne bind naa ko feeti rek bu xongal bu ruus ak waat. wax waxi dof naan big bu ruus big bu xongal big nangam sangam. damaa jongo ba sonn mënu ma am dàq. yow yow yow bu ñu ñi jàng yow ci lan nga nekk. ma ne. on est yàlla jàng naa ba sonn. kuy wut bac lan lay wut ci sabar. bu bay lay wut ci lamb. lamb tamit damay yër rek génn. kuy wut bac. lan lay lan lay wut ci ci ci ci ci ay lëmbal. sabar lëmbal dama yër génnaat. wuuma merde. papa sama maam moo ni ma woon sa ndey daa sonn sa kër baay. li la sama am wax dëgg soo ko si loo dugg dañ ca génn loo dugg. sa ndey barke yow mal xaamal la kabar ku ma liggéey la te dama gërëm sa yaay yow. ah mm, man daal sama maam mi wax loo dugg dañ ca génn. waaye nag dan ne sa ndey bu liggéeyee loo dugg génn ca nee na fekk ngay sabab lu di liggéey. man sabab lu sa ndey liggéey na teel bi bi nga góorgóorlu. man damaa jàng jàng ba sonn bak bak bak kese nii bak. yow yow damaa jàpp ne yow man damaa jàpp ne aw rab la doon rab. bak ay point dong lañ lay laaj point bak jëm fii xoolal capp fii cappaat fii. sa jooy seetaan yi dimbali ma ci rek dimbali ma te yàlla tax rek. jàppee moomee nit ne doon naqar nga naa ko bul jooy damay jooy yow yow barke yow mal xeama lakk bari yow fa ngay mujjee man damay damay jooy yow maçon dugal rek maçon nga jëm yow maçon ma dem leen maçon ji déedéet woon ni yàlla du ma maçon ji pap fa am man ak yow man ak yow foog ne jandoo yow ma barke yow mal xeama lakk bi waaw ñaanal ma yàlla déwén ma ma dagg baat bi xoolal mention spéciale laay boole d'office beeg ni ko ragaj pap di nga jàng ci nii wala ci naa man sa bàyyi fi ma jaar di fa jaar de yow. yow yow yaa ciy jàng yow. yàlla ne yàlla papa déwén incha ñaanal ma yàlla. man sama doom moom chaque instant dama koy ñaanal lu ma la mere mere dama la koy ña dama ñaanal lu baax ndax du la ñaanal safa aw safaan. di sabar bàyyi naa ko lamb lëmbel yooyu yëpp naa papa xoolal bag bi bu commencé tëju rek. waaw baax na baax na ba déwén ak jàmm incha allah. waaw léegi naa toog ci kër fan di ma tag bi rek. yàlla baax amul benn problème yaa yaa wax ni déwén di nga jàng ba déwén ak jàmm. pour ni yàlla papa foog ma jàng ndax sa sonn ci sama kër yaa. nga ni yow sandaay sonn sama sandaay moo kër wala ma maa sonn sa ma kan kër gi benn benn gañoo fee takk muy man man bëgg faal barke yombal xaam lakk man. sa ndey sonn na sama kër boo góorgóorloo ca sabab lu liggéey yàlla jàppale la ci bañ bi. ah sa waxee fenn fu nekk war a def bag fenn fu nekk nga dugg ku ku wax nga ne yaa ko xam lu waay du ngay fenn di tag di dajale du dul di dajale barke bi mal xaama lakk bar li ngay fenn fenn ko ci big bi kayit yi ndax nga indi bag bi ngay wér di fenn bu lu wax nga ne yaa ko xam te xamu boo xaman di nga indi bag ay fen nga xam moo tax nga ñàkk indi bag Eh, eh Eh aujourd'hui aujourd'hui aussi c'est diggante barke bi mal xiyama la kabar bu mul bak ma ñuus la ci maçon bi nga dem maçon yow san nijaay la san nijaay lamp gay lamp gay lay booleel ak moor gay ak bàcce gay ñu tëcc sa nday yow maçon ba di nga maçon ji yow eh, le monde parax maa ngi ñaan ndeysaan ñi nga xam ni am nañ bak yal na leen bak bi jikk yàlla na leen bag bi jig te muurloo ko barke bi yomal xiyaamal lakk bar yàlla defal leen xéewal gi ni saw baawaan saawaan barke bi yomal xiyaamal lakk bar nga xam suñ paree fi changé rek am seen liggéey ñi nga xam nag amun amun woon bag te doon liggéey nga xam ne sonn nañ ci njàng mi ndax njàng taxut a am mën a jàng a xam barke bi yomal xiyaamal lakk bar nga xam sonn nañ ci ca liggéeyam bu déwénee yàlla na leen yàlla may da ñi nga xam nag dañuy da mën nanoo jàng neex na nam xel ba pare di tappale bàkke wi mal xaama lakk bar ku ci yor doom ju mel ni pili pili bi sama doom ji yóbbul ca moson ba ñu tas na ndayam ñu tas ko bu baax a baax nga foog nii man sa bàyyi li ma jot li ma daj ci ay kaye man li ma daj ci ay big li ma daj ci ay saak li ma daj ci ay dàll ay yéri yow lu toll genn wàll milliard def naa ko ci yow yàlla di ma si gën may def ci yow nga foog du ma la jubbanti kiy jaag dal ak saag ya barke yo mal xaamal la kabar yaay kiy dagg dagg bag bi dem Europe dem Europe laa ñu fay ma yow vacances xam nga nag vacances dana na ma lay bàyyi ngay dem sa kër maam yaay kuy toog ci sa kër bàyyi ak sa ndey même am nga ko sax yow ba nu wooma nu nu wooma dara dara dara ci yow vacances yoo tey vacances yoo suba fii ngay toog añ fii nga koy def génnatoo li la rawan ca école ba ci kër gi nga koy jàng barke we mal xaamal ak amul do yow fajar laa lay fajar boo jullee waxtu wax waxtu waxtu woo julli ba pare dëj naa la ci sama wet nga jàng yow lii lii lii lii xar laa koy jox ñu yëw ndax lii jurul taf jurul wan kenn yow sa doom jëw sa doom jëwmul bàkk